def euh, rencontre ak population bi doon def manifestation ak ndaw yi doon def manifestation bu bañ une am benn euh, récupération politique ci mouvement wala association ñu waxtaan ak ndaw ñi ci façon bu dëggu ñu bàyyi wàlla xel ñi nga xam ne tey même bu fekkee am na manifestation ñoom dañuy suuli seen doom ñu bàyyi wàlla xel ñi nga xam ni démb ay victimes lañu deuk fofu foofu ngor te sen yoon nekul ci manifestation xam nga njit réew mi def na devoir am ci nga mu dalal len mais rencontre yu mel ni senegal souvent dañu dul lal gomba duñu lal gomba duñu faj gomba dañuy dañuy fat li ko wër ni rek parce que mm-hmm. rencontre bi amna solo xeyna li tukkee ci rencontre bi ñu waxtaane ko mun nañ ko bañ a étaler publiquement mm-hmm. mais xex bi xëccoo bi publiquement lañ ko def donc war nañu leeral ñi doon xex ñi doon tal di lii ak lii lañ fa dëppoo ci ay kàddu. parce que parce que loolu mooy tax waxu kilifa souvent du sax parce que bu fekkee ñiy manifester leeralu ñu leen lu tax euh, wala lu ñu jëlee ci waxtaan ba ñoom dañuy continuer di manifester parce que ñoom ñi ñoo jiitoon manifestation yi. way takk der aussi parce que tey ñi demoon palais lu mu néew néew néew bu ñu amee accord war na am condition bu ñu tegal nguur gi muy ñu wàññi effectif way takk der ci ñoom gis nga gendarme yi policiers yi ci ñun la ñu bokk. mais seen seen présence dafay lëndëmal quartier. Mhm. ñu jeexal foofu rapidement Massour. Mhm. waaw seen présence dafay lëndëmal quartier donc ci waxtaan bi dañu xool. lu ñu mën a wàññee effectif bi pour ñoom waxtaan ak seen njaboot. ñu tas information bi. balaa balaa balaa balaa nga xam ba ba ba ñi doon manifester mën a mhm. dégg mën a comprendre lan la ñu jëlee. par exemple Ousmane Sonko dina fa yéene nekk candidat dara du ko tey itam euh, nag mu bokk ci yooyu l'élection loolu ci boppam moom moo ko xamle dem ci guddi la yëkkati yooyu le kàddu moom maire bu Ziguinchor àdduna itam ci àtte bi nga xam ni moo daal di euh, juddu ci procès bi ko doon wutale ak Mame Mbaye Niang jëm ci wàllum diffamation fi mu ne nag daal taxaw na daal ngir nag ñépp daal di génn jàmmaarloo ak régime bi nga xam ni moo fi daal di nekk jamono ji bu njiitu réew mi Macky Sall yooyu de kàddu Ousmane Sonko démb euh, yëkkati ko euh, ca nag kàddu ya mu yëkkati nam ko taamoo defee dal ci bu baax a baax ci kaw njiitu réew mi ak li nga xam ne moo fi jotati xew ci ayubés yu génn rawatina li nga xam moo tukkee ci ab procès boobu ak yaak Ibrahima Khalil Diémé ñaari fan gannaaw bañ ko daanee ci tribunal bu ndakaaru ci juróom benn weer bu toftal sursis Ousmane Sonko ñëwaat di janoo ak ak askan wi di yi ay kàddu jëmale ko ci situation bi nga xamante ne moom la réew mi di dund ci wàllum politique jamono ji la xewoon 2021 muy jóg bëgg a pexeel benn nit ci ay complot ki tappale ba yow askan wi nga jóg ne du fi amee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 mi nga xam militant yépp di ci jaaxle Ousmane Sonko di ci yeey yàbbi ak àtte pour wëyal dogalu Macky Sall wala ndigalu Macky Sall problème bi gën a rëy ci Sénégal mooy problème mu justice ndey jëréw bu bokk moomel bu sigi ci situation bi ni mel mi ngi woo sénégalais yépp ngir ñu taxaw jaamarloo ak nguur Macky Sall ñu xeex ko mu jóge fi suñ leen woowee ci ay manifestation ñaan nañ leen ngeen génn massivement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 ba mu nekkee ci situation bu jafe ci wàllum politique ba ci condamnation bi nga xamante ne moom lañ teg ci ndoddam askan wi yëpp daal di taxaw tem di jaajëfal ko bu baax a baax Ibrahima Khalil Diémé Ibrahima mu nekk kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko euh, yëkkati démb ci guddi fi ne nee na euh, kenn du ko tee nekk candidat ci ci élection yu dëgbal c'est son droit le plus son kenn du ma tere Karim Wade dañ koy tuumaal waaye kenn du ko jàpp ñu ne dañ koy jàpp waaye kenn du ko tëj dañ koy tëj waaye kenn du ko àtte dañ koy àtte waaye kenn du ko kenn du ko daan gis nga nguuru Ablaye Wade ak nguuru Macky Sall dafa am différence xam nga différence bi Ablaye Wade mag na ci benn moment ñoo ko doon xeex wala ñu mu doon xeex moom Ablaye Wade teew bokk na ci ay élection ñëpp bokkoon opposition bëggoon dem élection yëpp dem nañ ci élection 2012 ba ñu demee ba ci biir ñu ne kii moo jël P waaye amul majorité kee jël deux ñeneen yi bokkoon ci élection ñëw ànd ak moom. muy Macky Sall tey mu doon président de la République. 2024 euh, lañ jëm maa ngi koy wax démb tey F24 seen xeex xam nga lan la war a doon. na ñëpp bokk. na ñëpp bokk mooy ku mën a bokk. koo xamee ni yoon tegul sa kaw. koo xamee ni peut-être yoon tegul sa kaw ci ci ci kaw euh, fexe buñ la pour yobul la ci yoon. mais ko xamé ni yow def nga wala lo xamé ni yóbbu na la ci yoon nangul ni yóbbu na la ci yoon nangul ni daan nañ la ci yoon nangul ni ndax yoon tax na nangam ak nangam. na ñëpp bokk moy principe. ci ci ci ci lu ñu constitution ci état de droit ci démocratie également ñëpp mëna a bokk dem dagan baatu askan mais il a parfaitement raison et il est légitime quand il dit en tant qu'homme politique mais dangay bokk dara mun maa tere bokk wala quel mun maa tere bokk propos un homme politique qui aspire à, à être président un jour mais propos également de quelqu'un qui, xam ne dafa jàpp ne koy traqué wala dañ koy sonné. Mm-hmm. mais lui, entre waxam et ak réalité bi y a nuance peut-être mom il na à l'origine de nuance boobu wala mu am jafe-jafe mm-hmm. wala état wala nguur ñu fi ne wala régime bi fi ne posé ko ci loolu waaye lii principe bi mooy ñëpp bokk élection mais pour ñëpp bokk élection nag ci présidentielle am na yu bari yoo xam ne foog ñu def ko bokk na ci parrainage bi nañ ko waxtaanee waat buñ ko waree dindi dindi ko bokk na ci lu ñuy wooyee ay euh, homme politique yu ñuy jéem a wutal ay ndëgg sërëx ak ñoom seen bopp homme politique yi bañ a dugg seen dugal seen bopp loo xam après dañuy ñëw ne ni euh, dañ maa toñ alors que peut-être yow yaa tooñ mm-hmm. ba ñu écarté wax itam ci daan bi nga xam ne moom lañ tekk ci euh, ki nga xam ne moo di leader bu Pastef di Ousmane Sonko mu di juróom benn weer yu mu dul tëdd ak ndàmpaay lu toll ci ñaari téeméeri million euh, leader yu coalition Yewwi Askan Wi démb nag yëglu nañ ci loolu ngir euh, ñaawlu ko ñoom sax fi ne daanu fa seenee wàcc Eh, ci mbedd ndakaaru yi fukki fan ak eh, juróom-ñeent ci weeru mai eh, bi ñu nekk niki démb daal lañ yëkkati yooyu la kàddu janoo ak taskatu xabaar yi ngir ñaawlu bu baax a baax atte bi nga xam ne moo juddu ci mbir mi wutale ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñaawlu na itam ci jëmale kàddu yi nga xam te si ni moo daal di rek ndox ci diggante Barthélémy Dias ak itam Sonko yaatale ak Biram Xari Ndaw bu kenn naatable ni dañuy tasaaroo. yile kàddu mu ngi bàyyeekoo ci Khalifa sàll bokk ci conférence des leaders mu yëkkatikoo ci bile ndaje gannaaw ba yoon daanee Ousmane Sonko ak itam kàddu yu tàng jër bàyyeekoo ci Barthélémy Diaz. que Yewwi fa mu toll woon ma nga fa nous sommes une famille nous sommes un groupe d'amis amul luñ dul waxtaane bu kenn naatable ni daañu.